بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول وللرسول إذا دعاكم للإيمان إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحسرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم حاصة واعلموا أن الله سديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Serigne Cheikh Gueye ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla def ko muy magu diine euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Euh, nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV ñu ngi jël ci nuyoo bi di ci jiital euh, ki ci daan jiital muy la xalif général de Thiénaba euh, Baye Serigne Abdourahim sekk di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko di jël nuyoo kilifa diine yi nga xamee ne ñoo nekk ci réew mi yëpp di ko teg ci loxoom wàcc ci njobootam nuyu Serigne Cheikhou amadu sekk imaamu ratib bu canaba ak imaam yi mu bokkal grande moske bu Thiénaba ak jàkka yi nga xamee ni Euh, ñoom ñoo nekk ci biir Canaba wala ñu nekk ci bitib Canaba ñu leen di nuyu di leen ziyaara euh, nuyu Serigne Alsaan Ñaana Seck chef de village waaye ab nuyoom dañ koy teg ci loxo Serigne Cheikhou Tambédou euh, mi nga xamee ni moom mooy chef de quartier Tafsir Maam Daour Diop mu jàllale ñu ko rek ba ci chef de quartier yi nga xamee ni ñoom ñoo nekk ci biir Canaba yëpp waaye di jaar ci chef de village Serigne Alsaan Ñaana nuyu le maire Talla Diagne premier magistrat de la commune de Canaba Euh, moo ñuy jàllaleel nuyoo bi euh, mu jaar ci la sous-préfet jaar ci ñi mu war a jaar ba àgg ci son excellence le président Macky Sall euh, di nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xamee ni saa su nekk Euh, ñu ngi am mbégte di ànd ak waa Thiénaba TV wala ñuy am mbégte di ànd ak waa Ansar euh, TV mbokku téléspectateurs yi euh, tey ñu ngi teew fii ci institut Salman Al Farisi bi nga xamee ni macha allah fii ci biir Thiénaba la nekk waaye ci quartier Mame Dawour Diop institut bi nekk fi macha allah di jàngale alxuraan waaye di. tarbiya ndongo daara yi nga xamee ni ñoom ñoo fi nekk di leen jàngal li nga xam ni moom mooy science de la charia mu nekk institut bu am solo boo xam ni ñi fi nekk jàmbaar lañ sëriñ Cheikh Mbay euh, mi nga xamee ni moom moo jiite daara ji muy directeur bi euh, ñu koy jaajëfal euh, macha allah waaye ñi mu àndal ci liggéey bi jiitu na ci sëriñ daara oustaz Serif Konaté mi nga xamee ni macha allah moom tamit mu ngi ciy liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la daara jooju nag muy institut Salman Al Farisi moom mooy waajal bis bu màgg bis boo xam ni fii la koy defee ci biir Canaba ànd ko ak ndongo daara yi waaye ànd ko ak ñi nga xamee ni ñoom ñooy pays Euh, ñoom ñooy waajal bis boobu bis bi nag ñu ngi ko jàpp samedi le 26 juin 2021 incha allah fii lañ ko war a def waaye bala ñoo dugg ci woote euh, bis bi euh, dañuy jël kàddu gi jox ko ki nga xam ni moom mooy Chérif Konaté mi jiite njàngale mi fii ci daara ji waaye jiitu na nekk directeur Serigne Cheikh mbay Serigne Cheikh Chérif la ñuy jox mu wax ñu historique gu daara ji daara ji kañ nañ ko samp ak bi ñu ko sampee ba léegi naka lay doxee ci wàllu njàngale waaye ci wàllu histoire lan lañ ci mën a xamal ñu suñu wax waxtaan suñu nag macha allah doog a dugg ci woote bi. auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ginnaaw sant yàlla di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah di la nuyu sëñ Njàmme ak ñi nga àndal di nuyu képp kuy safu Thiénaba TV waaye di nuyu xalifa général Baye Abdourahim di ko ñaanal yàlla may ko wér euh, di nuyu waa jamiyatu madarisatul quran yi Thiénaba di jël nuyoo bi teg ko ci loxo amir euh, Oustaz Dame mu jottali ko ci képp koo xamante ne muy ci jamiya boobu di wax ne daara ji ñu ngi ko tàmbalee euh, le premier octobre 2019 Euh, daara ji nag dañoo nekkoon fii di liggéey fii Thiénaba yàlla def nag suñu liggéey jeex ñu waroon a dellu dëkk ba yàlla def parent yi yenn parent yi waxtaan ak ñun suñ sañoon ñu toog fii tijji daara euh, ci lañ toog nag waxtaan ak ñoom ñu jox ñu barab bii ñu tijji ko daara daara ji nag lu tax ñu tuddee ko Salmanul Farisi Salman xam nañ ne nekkutoon arab waaye perse la woon waaye demoon na bi saxaaba yi di ko xëccoo waa Madina di wax ne Salman ci ñun la bokk waaye waa Makka di wax ne Salman ci ñun la bokk waaye yonent bi sallallahu sallam ne Salman ci ñun la bokk ñun waa kër gi Salman min na ahlu ahlu ahlal bayt nee na Salman ci ñun la bokk waa kër gi kom ñun wax dëgg neex dañoo nekkoon fii di liggéey di liggéey li nga xamante ne mooy alquran Euh, ànd ci parents d'élèves wax dëgg ne xel ñu jàppale ñu ci bu baax a baax a baax a baax biñ demee ba war a dem nag ñu jàpp ne dañ fee war a toog ndax ci ñoom lañ bokk donte bokkuñ xeet ndax man mi société bambara la waaye ñoom ay olof lañ waaye yàlla def nag euh, jëflante bi rafet lool bañ jàpp ne fii war nañ fee mun a toog continuer suñ liggéey euh, tijjil ñu fi jox ñu barab bi moo taxit nag ñu jël tur bi tuddee ko salmaanul faris ndax histoire bi ni mu xawee méngoo incha allah loolu laal ci tënk loolu mooy jaar jaari daara ji euh, internat am na internat am na externat internat yi euh, ñoo ngi fi internat yi tamit ci ay pàcc la am na ñoo xamante ne ñoo yor seen lépp am na ñoo xamante ne tamit dañ leen di indil seen wàllu ravitaillement seen wàllu añ ak reer ak yooyu externa yi tamit dañuy am na ñiy yendu am na ñoo xamante ne midi di lañuy wàcc ñeenti pàcc yooyu daal moo am ci daara bi incha allah. Ah, jërëjëf oustaz Cherif Dia ah, ci leeral yu am solo yi nga xamee ni macha allah indi na ko kon dégg ngeen ah, daara ji di salmaan al Farisi dégg ngeen histoire bi mu nett li muy cosaanu daara ji waaye cosaan li méngaloo ak turuwa. Euh, macha allah yal na yàlla barkeel euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon euh, Salmaanul Farisi daara la joo xam ni daara internat la wala waaye am na externat mooy am na ñëw féete fi di fi yeewoo di fi jànge waaye am na tamit ñëw jàng si delluwaat ci kër ya. Euh, ba suba nga dellu siwaat kon yàlla na yàlla barkeel euh, noonu la daara ji doxe daara jooju nag mooy woote bës euh, bës boo xam ni bés bu màgg la mu war koo def fii ci wetu daara ji ci loolu nag ku wax daara wax woote woo kilifa yi nga xamee ni ñoo ŋànk daara ji wala ñoo ŋànk dëkk bi waaye woo ñi nga xamee ni macha allah alxuraan rek la ñuy wër fu mu programme rek ñu daal fay taxaw ndax bëgg am ca yool ba ci loolu nag la ñuy jël kàddu gi jox ko ki nga xam ni moom mooy imam Souleymane Ñing di vice président parents d'élèves yi waaye ànd ak Serigne Cheikh Mbaye ci liggéey bi liggéey bu am solo Serigne Cheikh Mbaye yëkkati kàddu gi jox ko kon moom la ñuy jox kàddu gi te déglu ko. ahousubillahi samilalim min asheytani irajim bisimillahi irahmani irahim la hawla wala quwata illa bika yaalin azim hasbuna allahu nimal wakil wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maolana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante suñ borom bi subhaanahu wa taala julli nañ ci sangam bu tedd bi seydina muhammad di tëbb ci faydu seydil mujahid maam ahmad ndak sekk waaye di jaajëfal cheikh ahmad tidiane sérif radiallahu anhu di wax ni ñoo ngi fii toog tey ci daaray Euh, Salmanul Faris nga xamante ni jàmbaar woon ci diine ji incha allahu di waajal bis bu am solo nag muy bisub alquran euh, bis boobu kañ lay nekk le 26 juin incha allahu fii ci Canaba euh, ñu ci woo nag jullit yi dégg suñu kàddu yëpp yaakaar naa ni ndongo li nga xamante ni moo ñu ubbil suñu njàng. mel na ni ku junj loolu ñëw na ci ñun ci aaya bi yàlla sama borom subhaanahu wa taala di ñu jàngal ci sóotu anfal aya 23 di wax ni yaa ayyuha allazina amanu istajibu lillahi wa li rasulihi ida daakum lima yuxyikum wa alamu anna allaha yaxuulu bayna al mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuxsaruun dem ba ca bii sax ma wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum xassa waa alamu anna allaha sadidul iqaab pour rek di bañ ñuy dugg ci commentaire wala loo xamante ni du mbirum jullit pour mu bañ a gudd doomu aadama du yee fitna waaye fépp foo xamante rek dañ fa soxla ab jullit bu ne yaa ayyuhal lazina amanu la njëkk woote bi jóg rek xamal ni ca nga bokk nga dem wuy ji kon woote bi képp ku gëm yàlla tey wax ashhadu an laa ilaaha illallah maanaam woote bi ñu ngi la ciy woo ah wolof yi nag day wax naan tàgg boo gis am na jàppal diw woote bi kiñ koy njëkk adressé te di ko ko jox muy suñu maam soxla ci ñaan gu wér te am ci moom ndigalul woote bi nag mooy suñu maam Abdourahim Seck xalifa alxalifa xalifa yàlla na yàlla yàggal ko fi may ko wér waaye wàcce ko ba ci suñu maam imaam imaamu ratib maam Cheikhou Amadou wàcce ko ba ci suñu baay baay alaaji baay alsan ñaan Seck waaye ku wax kilifa yi diine yi wax kilifa aada yi ndax ñoo bokk ngànk dëkk bi ñuy jiital ci wootey kilifa aada président wàcce ko ba ci gouverneur gouverneur wàcce ko ba ci préfet de Thiès waaye wàcce ko ba ci sous-préfet bi nga xamante ni moo nekk fii si Thiénaba wàcce ko ba si euh, premier magistrat de la commune monsieur Talla Diagne Euh, wàcce ko ba ci au conseil des collectivités territoriales monsieur Abdou Nying ak ki nga xamante ni mooy suñu mag di suñu frère xalifa Ndiaye nga xamante ni moom mooy borom Thiénaba Horizon ak ñi fi nekk ñëpp ak euh, ak Serigne Gora Ndiaye nga xamante ni moo nekk représentant PDS. Euh, dañoo jub ci ay activités yu bare bare bare bare te ñoomit wax dëgg yàlla ku ci nekk dëkk bi rek moo la ñor. moo tax ñu leen di woo ci li nga xamante ni mooy suñu yëngatu yëngatu ci diine ndax ci dëkk bi lañ bokk te lii defar dëkk bi moo leen tax jóg bu ko defee ñoom ñu ngi leen di fàttali suñu bis bi waaye di woo ñi nga xamante ni ñoo ñoom ñoo bokkul lépp nekk ay nekk nekk ci dëkk bi ci masajid yi nekk ci dëkk bi yépp bu ñu limee jàkk yi mën nañoo mën nañoo desal ndax Thiénaba li fi nekk ci ay jàkka dafa bari ñu ngi woo imaam yi nekk ci jàkka yi yépp jël ji woote bi imaam yooyu rek teg ko ci loxo yi sëriñ Pape Seck Mourtada nga xamante ni moom buñ ko tegee ci moom rek imaam yëpp jàll nañ ginnaaw bañ nuyu sëñ Cheikh Amadou nga xamante moom lañ jiitaloon ci nuyoo bi. su ko defee ñuy woo daayira yi tamit waaye di woo tamit suñu yaay yi daara ji euh, daara ju daara ju social la macha allah xam naa ni bala ñëw tëj euh, kilifa yi ci jotaay bi dinañ ci yegg si waaye daarala joo xamante ni daara ju daara ju daara ju ñëpp safoo la wax dëgg yàlla macha allah su ko defee nag pour ñu xam activité bi ñu fi nekkee woon ci biir daara ji nan ñu wuy si incha allahu ci woote bi yàlla boobu bis boobu nga xamante ni mooy la vingt 26. ñu ñaan yàlla yàlla yóbbuñ ca jàmm ñaan yàlla liñ ci jublu euh, di feeñal xam-xam di feeñalu njàngam alquran yaan yàlla yàlla suñ borom may ñu ci kattan bañ man ko di ci waxaale tamit am nañ ci ñaari ñaari ñaari kàng ñaari nit yu mokkal alquran am nañ ko ci ñaari ñooñu dañ leen commencé déglu incha allah euh, le 19 dañ leen déglu ba keroog le 23 wala le 22 ñuy àggal ñu soog leen génn nag ci tant bi pour shahada ak mbooloo mi nga xamante ni ñoo koy teewee si ñaan yàlla ñoo ñooñu nga xamante ni ay xale lañ te nekkoon ci biir daara ji di nab nabi ba yàlla def ci ñoom alquran jooju. buñ koy feeñal ci biir tànt bi ñu ngi ñaan yàlla xéwal googu yàlla na ko ñëpp fekk ko defee woote li wolof di wax xalangu dajul suuf waaye ñëpp la ñuy woo quartier yi nekk ba di douze quartiers yi quartier bu nekk sa turu chef de quartier ba nag jël wooteeb quartier yooyu teg ko ci loxo yi suñu woy jur suñ Cheikh Tambidou comme ni ko suñu tonto Njambe Gueye waxee léegi maanaam tonto Cheikh Tambidou bi nga xam ne moom lañ nekk quartier la jël nuyoo boobu rek moom ak Baye Ñaana ak woote boobu jox leen ko ñu wool ñu seen quartier yëpp di góor ak jigéen li daal mooy kàddu yu woote lii mooy kàddu yu soññe ak di fàttali bis boobu ñu ngi jégalu bu a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ah jërëjëf jërëjëf Imaam Souleymane Ñing macha allah dégg ngeen ko ci woote bu yaatu bi ah, maa ngi woo ñëpp moom la waxkat ba ni woon rek wow ci koŋ lay yem xam naa bu ni woon maa ngi jël woote bi teg ko ci loxol Baye Serigne Abdourahim Seck xalif généralu Thiénaba ak lu mu jaboote booba woote bi day mat euh, waaye euh, daara moom alxuraan moo demee noonu kon euh, ñu ngi tamit fàttali ñi nga xam ne ñoom la daara ji dëkkal wax na ko léegi muy sëriñ Cheikhou Tambédou mi chef de quartier quartier maam Daour Diop waaye dëkkandoo yi nga xam ñoo sës ci daara ji ak daara yi sës ci yi nga xam ne ñoo bokk benn zone bu ñu nekk muy daara yaay Fatou Fatou Mboup macha allah ndey faatu mbub mu ngi fii ci biir koñ bi sorewul waaye daara ji nga xam ne mooy daara maam Ndiaga Diop Euh, moom tamit mu ngi fii ci koñ bi soriwul euh, ñooñ ñoom moom ñoo koy ànd ak euh, daaray salmaan al Farisi ci bis bu màgg boobu di ci woo ñëpp di woo dëkkandoo yi fàttewuñ kenn macha allah kon bis baa ngi noonu waaye ku wax bis nag bisu daara di nga wax macha allah baayu daara wala nga wax yaayu daara Euh, Pape Abdoulaye Mboub moom moo fi teewal euh, waajur yi nga xamee ni ñoom ñoo indi seeni ndongo daara euh, fii ci biir daara ji ak ki nga xam ne moom mooy soxna Aïssa Gueye kon dañuy jox Pape Abdoulaye Mboub su paree rek ñu jox soxna Aïssa Gueye ñoom tam ñu yëkkatu kàddu ñi nga xam ne ñoom ñooy waajuru ndongo daara yi nekk ci daara yi Salman Al Farisi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Moussa Ndiame Gueye waaye jaajëf ñi nga xam ni yëkkate seen kàddu lépp matale. fa tabarakallah yàlla yàlla def ci yiw barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ne rek xam naa duñu répété nuyoo bi waaye am na koo xam ne moom yàlla moo ko teg fi mu tegu muy suñu waajur bàyyi Serigne Abdourahim Seck di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér koo xam ni bu ni woon du am du am lu am yow la tey mooy Seexu Canaba ñu ngi ñaan kay gi neex lool bi barakatu Sayyiduna Muhammad barke alquranul karim waaye nag ñu ñëwaat fii ci daara ji nga xam ni macha allah daara ju am solo la xam naa sax gars yi ñu naan Zalman waaye man damaa daara Chérif Konaté rek mu jeex tàkk ndax euh, nit la koo xamante ni si fa tabaarakallah euh, parent d'élèves yëpp muy góor muy jigéen bokk nañ ko sant gërëm ñaanal ko ci disponibilité am waaye ci pédagogie am waaye macha allah ci laabiram ndongo yi muy jàngal ñooy ay xaritam moo tax parents d'élèves yëpp nekk ay xaritam wa ma na illa bi ma alimna loolu nag defe naa parents yëpp mën naa leen ko waxaaleel kon ñooy woote bis bis bi nag maa ngi ciy soññu parents d'élèves yëpp xam naa jigéen ñi macha allah bu ma seen sax ñoom laay wooteel ndax ñooy ñooy jàmbaar yi sëñ Ibrahima Seck ne woon na bu Samba Sadio dekke woon fetali guddi jigéen ñi lañ koy jox lool seen i jàmbaar la waaye am na ku leen war a wooteel kon góor ñi maa ngi ñaan ñëpp li war a mën a góorgóorlu ki nga xam ni moom oustaz Konaté le 26 ñu sagal ko nan lañ koy sagalee teel a ñëw sañse ca lépp lu mu laaj ñu def ko ci dox ci wax ci jëf ba bés bi mel ni mu war a mel ndax nag macha allah liggéey na liggéey bu am solo ñun rek ñoo war a ñëw nag pour cautionner bis bi waaye pour taaral bis bi kon fa tabarakallah képp kuy parent d'élève sa doom ne fi wala sax koo xamante ni si rek nag yaa ngi ci koñ bi wala yaa ngi bëgge daara macha allah ñu ngi lay woo le 26 incha allah fii ci daara ji ci kàttanu yàlla nga xam ni ndongo yi ñoo def démonstration ci alquran yàlla na ci yàlla yóbboo jàmm ci barke sang bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal nag ndongo bu fi jaar yàlla na yàlla def ko mu mokkal alquran te jëfe ko ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag dama ci ci profité woo koo xam ni wax dëgg yàlla ku jàmbaare ci daara yi la ndax bis bi nag laaj na poche laaj na taxawaay sëriñ a sekk borom digal mi nga xam ni ku ma jegele fa tabarakallah waaye ma xam li muy def macha allah ci daara ak ci diina ji sang bi ñi ngi lay woo rawatina sa turandoo yu ma la tudd fi lay jàngee bis booba lay tari kon daara ji ñi ngi lay woo ci say ñaan ak ci say jàppale waaye mbay Babacar kan bu gëm sa bopp moom it allah wax dëgg yàlla lu am solo moom it lay taxawee kon yow it sa loxo soxla nañ ko parce que bis boobu nag dañoo bëgg yëf yi ñoŋ alquran sigi mbokk yi daal def ba def jeex def ci alquran moo gën waaye def ci diine moo gën kon parent yi bàyyiwunu kenn góor ak jigéen su bis baa ñun parent yi nañu sañse nañu def jël suñuy poste def ko xaalis ba mu fees nan sagal oustaz sagal suñuy doom ku fi ñëw yàlla na yàlla faj sa aajo zahiran nu baatinan salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant ñëpp di jiital ci nuyoo bi Baye Abdou Rahim Seck xalifi général de Thiénaba di ko ñaanal yàlla na fi yàgg lool te wér ak di nuyu imaamu ratib Thiénaba Baye Cheikh amadu Seck ko ñaanal yàgg fi lool te wér di jël nuyoo di ko teg ci loxoom mu joxal ñu ko imaam yi fi nekk yëpp di nuyu sunu chef de village Baye ñaan Seck yàlla fi yàgg lool te wér di nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu jàllaleel ñu ko ci chef de quartier yëpp ak kilifa diine yëpp. di jiital ci nuyoo bi nag sunu sëriñ Baye Cheikh mbay ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare di ko ñaanal na yàgg fi lool te wér di ñaanal nag sunu sëriñ daara di ko ñaanal yàlla na fi yàgg lool te wér yërëm na ndongo yi jàppale na leen téye na leen boo leen gisee woote bii nag ñu ngi woo waa Sénégal di woo waa monde entier di woo nag waa ba ndax ñu cene lañ am boo leen gisee woote bi nag le 26 juin ci daara yi Salmaanu Faris quartier Cheikh Tambédou ñu ngi woo jigéen ñi yëpp sunu mbootaay yi bàyyiwunu képp képp ku sa doom nekk ci daara ji rek 7 heures na la fekk ci daara ji ndax bëgg na nag sa doom balaa yéeg ci tribune bi fekk fi sa yaay ndax bëgguñu kenn ñëw ni sama doom tariwul dañoo bëgg ñëpp ñu ñëw teel takku fa xam ni lii sunu programme la bàyyiwuma kenn maa ngi woo ñëpp. di woo monsieur le maire Talla Diagne di woo conseil bi yëpp ñuy woote bi nag ñu ngi beral nuyoo ak woote Abdou Ñing ñu ngi koy woo ci bis bi abdu ñu ngi lay woo ci bis bi ñun di woo nag sama mbokk politiciens yëpp di woo jeunesse su ba bépp képp ku nekk ci APR rek ñu ngi lay woo ci bis bi soxla naa leen fi seen présence ak seen beneen présence ci wet gi maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn di woo nag suñu coordonnateur suñu président Ndiaga Dieng di woo ñoom Birane ñoom xaali bàyyiwuma kenn kenn kenn les amis d'Abdou Gningue maa ngi wooñ ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn di woote di woo ba tey rek waa Mbayeen di woo suñu borom kër chef de village Baye Modou Mbaye di jël nu woote bi di ko teg ci loxoom mu wool waa Mbayeen gépp bàyyiwuñu kenn di ñaan nag suñu conférence bi yàlla na ci yàlla def ndox mu sedd ñu fekkee kook jàmm te eggale kook jàmm ci barke na Nabil Moustapha ak bépp daara bu nekk Canaba rek di nuyu sunu daara ji ñu dendal muy daara ndey yaay ndey faatu mbuub di ko siyaare bu baax di ko ñaanal fa tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge yaay ju baax la di nuyu waa koñ bi yëpp di siyaare ñëpp di woo ñëpp nag suñu sañoon ñëpp teel a génn programme bi 8 lay démarrer bëgg nañ 14 heures pile ku ne dellu sa kër yi ndax journée boobu tamit dafa am beneen programme bu am ci biir Thiénaba ñu bëgg cee doxalaale programme ba te bëgg nañ balaa programme bii di commencé ñun suñu programme jeex maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf euh, Pape Abdoulaye Mboup macha allah ci euh, woote bu am solo bi kon euh, Pape Abdoulaye mu ngi tàllal loxo rek képp koo xam ni parent la xam naa sax waxul ni parent d'élève bu daara jii nga waaye boo dee parent d'élève bu beneen daara macha allah nga ñëw rek jàppale ndax daara yëpp benn la Euh, kon mu ngi lay woo ci bis bi nga xamee ni euh, bisu alxuraan la euh, bi mu daanelee soxna ay sëgg yi moom tamit yaayu daara ji yëkkati na kàddu rek woo yaay yi nga xam ni ñoo nekk ci biir Thiénaba yëpp ak ñi nga xam ñoo nekk ci bitib Canaba jàll na ba Mbayeen euh, ndax ku wax Baye Cheikh mbay di nga xam ni euh, waa Mbayeen am nañ ci wàllu rëy euh, Ndeye Farma man maa lay wooyal sama bopp macha allah maa ngi lay ci conférence bi mu nekk conférence boo xam ni ak mag jooju muy soxna Mbenooy ñoom nga xam ni yàlla def na samay xarit spécial lañ kon ñu ngi leen di woo ci conférence bu mag bi ku wax conférence nag di nga wax ni xam ni sëriñ daara yi nekk ci biir Canaba am nañ kuréel goo xam ni Oustaz Dame Khoule moom moo ko jiite tey nag kàdduk sëriñ daara yi oustaz Mouhamed Sène euh, moom moo sëriñ daara euh, Chérif Konaté aouzu billahi min ashaytan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyu boobu xalif général bu Thiénaba Baye Cheikh Abdourahim di ko ziar di ko ñaanal wérgu yaram ak gudd fan di nuyuwaat tamit chef de village sëñ Alxasan Seck ñu ngi koy nuyu di ko ziar di di ko wax mu jël nuyoo boobu teg ko ci mbooleem chef de quartier yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Thiénaba di nuyuwaat tamit imaam sëriñ Seexu Ahmadou Seck ñu koy nuyu di ko ziar di ko wax euh, nuyoo boobu na ko jël euh, jottalil ko mboolem imaam yi nga xamante ne ñoo nekk Thiénaba ak li ko wër di nuyuwaat tamit sëriñ daar yi di jiital ci nuyoo boobu ki nga xamante ne moom moo jiite mbooloom sëriñ daara yi muy seriñ daam xulle ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di nuyu mboolem sëriñ daar yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Thiénaba waaye di nuyu tamit parents d'élèves yi di leen ziyaar bu baax di jiital ci nuyoo boobu ba tey bay Cheikh euh, mbay mi nga xamante ne mooy directeuru daara ji ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaar ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ne moom la taxaw daara ji ak parents yi macha allah ginnaaw loolu ci ñu ngi wax ci kàddu Oustaz Konaté li nga xamante ne moom la ñuy def nii ci kàddoom lañ koy defee ci ndigalam donte ne sax matewuñ ko waaw maanaam ñu ngi woo ci nga ci bés bi nga xamante ne moom moom la ñu dégmal muy confrance bi nga xamante ne daara ji da koy amal muy Mahad Alfa Salmanul Faris le 26 juin incha allah ñu ngi ciy woo euh, sëriñ daar yëpp. waaw ñu ngi ciy woo sëriñ daara yëpp waaw di woote boobu tamit ñu ngi koy teg ci loxo yi sëriñ ki nga xamante ne moom moo jiite sëriñu daara yi muy sëriñ daam xule maanaam ñu ngi leen di woo waaye di ko sàkku ci ñoom di sàkku ci ñoom seen teewaay ci bés boobu di sàkku ci ñoom seen teel a ñëw ndax bés bi bés la boo xamante ne bésu sëriñ daara yi la waaye bésu ndongo yi la waaye bésu waa alxuraan la waaye bésu jullit ñi la bésu jullit ñi la ñu ngi ciy woo mboolem jullit waaw di ñaan yàlla bépp yool boo xamante ne euh, maanaam am na ci conférence boobu ñu bokk kook mboolem ñi nga xamante ne ñoo fa teew ak ñoo xamante ne amoon nañ yéene teew foofu barakallahu fiikum jazakumullahu xeyran ah jërëjëf jërëjëf oustaz Mouhamed seen kon euh, yëkkati na kàddu rek yëkkatil kàddu euh, sëriñ daara yi waaye jiite na sëriñ daara Chérif Konaté bi nga xam ne moom moo jiite daara ji waaye ñuy jaajëfal euh, sëriñ daara oustaz daam xulle mi nga xam ne aussi moom moo jiite euh, daara yi nekk ci biir canaba wala ñu nekk ci wala ñu wër canaba kon euh, bés baa ngi noonu samedi la le 26 juin 2021 ñu ciy woo rek sëriñ daara yëpp Euh, ñu ñëw ànd ak euh, waa daara ji di institut Salman Al Farisi euh, ci bis bu màgg boobu macha ku wax na bës da nga wax organisation ci loolu la ñuy jël kàddu gi jox ko ab Abdou Silla mi nga xam ne moom moo jiite wàllu organisation bi mu woo rek ñi nga xam ne ñoom la ko seqal wax tamit programme organisation bi naka la demee bu ko defee ñu bokk mbégte mi ak waa Thiénaba TV yi ñuy seetaan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا innaka anta alalim alxakim rabbi israx li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ah, mbokki jullit yi mbokku taalibe yi mbokku dëkkandoo yi ginnaaw bi ñu sante yàlla di ñaan mu jullit ñu ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa di gërëm suñu sëriñ ba maam ahmadu ndak waaye di ñaan mawlaaya abil abbas cheikh seyd ahmed tijaani sharif yàlla nañu ko yàlla gërëmal daa iman euh, woote bi nag ñun lañu dénk ñu doon président des organisateurs euh, comme ñi fi jaar ñëpp li ñu wax wax di waxaat moom répétition lay jur te yaakaar naa jaar nañ ci ba pare euh, woote yeeg yëpp macha allah man fi may commencer mooy di woo képp koo xamante ne nii parce que lii moom mooy première édition bi première édition nag comme ku ne xam na ne du doon loo xamante ni lu yomb la euh, di ñaan ci mbokk yi nga xamante ni ñoo bokk dëkk bi bokk diine ji bokk islam bi di ñaan ñëpp ñi nga xamante ni daanañ jàpp ci lu baax te bëgg lu baax euh, muy ASC yi muy association yi muy ñu mën a doon rek ñu ngi leen di woo ci journée boobu ah pour ñu ñëw jàppale ñu ci liggéey bi. parce que ku nekk xam na ne le 26 la le 26 juin la incha allah mais suñu programme ñun ci ni ñu bëgg a doxalee incha allah le 25 lay commencé à 17h ñu commencé pour ay bâche ak euh, préparer cérémonie ak yu mel noonu mais suñu programme mi ngi commencé incha allah euh, mise en place bi ñu ngi koy def a 8 bu soobee yàlla 8h 8h ba 8h et demi xale yi commencé yéeg ci euh, podium bi. pour euh, récital Coran bi waaw bu ko defee loolu aussi ñu ngi ci ñaan ñi nga xamante ni daanañ ñu jàppale ci liggéey yu mel noonu ah ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo di leen ci woowaat bu baax di leen wax ne mbir mi nga xamante ni ñoo ko daan bokk di ko taxawee yàlla dogal na ñuy taxawal première édition wu Daara Salman Al Farisi ah, bu euh, Chérif Konaté ñuy ñaan. képp koo xamante ne nii dégg nga suñu kàddu gi bul xaar woo nañ la bis na ko tey ba le 26 incha allah ci liggéey boobu ñu fas ne cee jàpp comme ñu daan def ci liggéey yu nga xamante ni moo jëmoon ci yooyu yëpp. ndax euh, organisation bi moom ku nekk xam na ne dañuy soxla ay chaise soxla ay bâche te loolu ay ay ay ñaari nit ñetti nit taxawaluñ ko kon bu ko defee moo tax ma ne ASC yeeg association yeeg ñëpp ñu ngi leen ciy woo. pour que ñu mën a ñëw soutenir ñu jàppaleñ ci bis boobu ba nga xamante ni organisation bi dina mucc ayib torop te ñu ngi ciy woo bonne volonté yëpp nag di leen ci woo di leen ci tàllal loxo pour que ñu ñëw soutenir ñu ci bis boobu jàppaleñ ci ah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf Baye Abdou Silla ci wax ju am solo ji mu yëkkati kon ci wàllu organisation euh, tàllal na loxo euh, ñi nga xam ni euh, ñoom la ci daan àndal. Euh, ci euh, yeneen bis yi kan wax na ni euh, première édition la waaye nag Thiénaba moom yàgg nañ fee organiser bis Euh, bisu alxuraan kon ñi nga xam ni ñoom la daan àndal ci organisation yi ci biir dëkk bi euh, ñu ngi lay mu ngi leen di woo ci ñu ñëw jàpp ci ci wàllu organisation bi ci euh, seen bis bi nga xamee ni samedi la le 26 juin 2021 jaajëfal nag képp koo xam ne yëkkati na fi kàddu tey ñu ànd ak suñu mbokk meneen moo xam ne aussi dañ ko jox kàddu muy oustaz Mamour Mbeng xam naa dañ naan oustaz Mamour Mbeng sëriñ daara wala ñu ni imaam oustaz Mamour Mbeng wala sax ñu ni oustaz Mamour Mbeng chroniqueur Thiénaba TV euh, ñëpp xam nañ euh, liggéey bu am solo bi nga xamee ni mu ngi koy def ci Thiénaba TV euh, doore na ko ci émission daara yi ca Thiénaba TV waaye jàll na ba ci émission ndogu yi yi nga xam ne doon na am ci biir koor gi mu liggéey fi liggéey boo xam ni liggéey bu am solo la daara nag la ñuy waxal bisu daara la ñuy waxal kon moom dina ci war a yëkkati kàddu lépp loo xam ne war na ko cee mottali ci ay kàddu rek mu mottali ko ci kon oustaz Mamour kàddu gaa ngi noonu alhamdulilah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xam naa tey sama nuyoo duma lim ndax fi sama nijaay El Hadj Moussa Ndiamé euh, tàmbale ak équipe bi fi jaar euh, rek laay jël jël asalaamualeykum wa rahmatullah jooju teg ko ci loxo bàyyi sëriñ Abdourahim Seck mi nga xam mooy xalif généralu Thiénaba ak li ci aju mu wàcce ko sama nijaay euh, dañuy faral di wax ni euh, yàpp lu mu am rek jox na ko ñeex waaye tey bu ma neexee ne Thiénaba TV li mu am lépp rek daanaka rek jox na ko tey daaray Salmaanul Faris ndax yaakaar naa image boo xam équipe bu Thiénaba TV euh, xam ni Thiénaba TV dooni ñi yor dex religieux bi ndax Thiénaba TV c'est religieuse maam ñëpp rek son religieux Euh, yaakaar naa fo El Hadj Pape Abdoulaye Mboup jaar ñu xam ko ci Thiénaba TV Imam Souleymane ñu ngi jaar fa ñu xam ko ci Thiénaba TV yow ngay doyen waa Thiénaba TV sama nijaay El Hadj Moussa man ma am fierté ci yaw euh, ndax euh, man ak yow seq nañ ay jotaay naw na lool ci it ku ànd ak yow ca nangoo wàcc boppam dina yokkaat ci communication kooku moom maa ngi koy wax ci kanamu ñi nga xam ñu ngi may seetaan te it yaakaar naa buñ ko waxee war nañ koo mën a dëggal. kon ñu ngi lay félicité yaakaar naa tey sama samay intervention ay félicitation rek lay nekk bu ma jógee ci boobu félicitation damay ñëw ci félicité sama nijaay sama nijaay euh, Cheikh mbay yaakaar naa ni bu ma nee sama nijaay Cheikh mbay ñiy xam taarix dinañ ko xam man bi may tuut tànk man maay sama caatu yaay xam nga xale bu yaayam génn ba timis day taxaw ci buntu kër gi di jooyal yaayam man dama cee jaar man dama daan taxaw ci buntu kër gi di jooyal sama yaay pour mu ñëw moo tax mooy sama yaay ma woon mbayeen te ñoom nijaay Cheikh Mbaye la fa doon fekk ci loolu aussi kon yaakaar tey bu nu toogee di communiquer ci daara joo xamante ne bii moom moo ñëw ubbi ko ngir bëgg daaram moo ñëw ubbi ko ci façon boo xam sama nijaay gis nga fi mu dalal daara ji nii daanaka da ko waajaloon sax pour ay activité économique am waaye xam na ni koom-koom mi ëpp doole mooy koom mu daara ndax dafa xam ne daara comme tëraayu suuf mun a ñàkk dafay bëgg a bàyyi loo xam nag moom comme yàlla yeex nag da ngay da ngay toog muy dox li gaay naan toog muy dox no bàmmeel moo am toog muy dox ci bu fekkee waajal nga ko waaw tëdd muy dem waaw tëdd muy dox mooy lan mooy nga mooy li nga am nga jox ko alquran kon sama nijaay ñu ngi lay félicité man sa soppe laa it xam nga ko euh, yaakaar naa tey annonce bi du woon jar may wax mais pour ma wax rek daf lay jaral lu nekk loolu moom xam naa ko Oustaz Chérif Konaté ma jëm ci moom sama nijaay gis nga jëmm ji toog man xam naa ne sëriñ daara la maanaam kii boroom xam-xam la macha allah ku ko jox sa doom ca yàkkamtiwoo da ci def xam-xam mu def ci yar xam-xam bi moom wér na ma man yar bi du wér na ma ki may seetaan nag pour mu vérifier yar bi mooy oustaz Chérif Konaté def na at yu bari ci cana Thiénaba te kenn musul ni lim fi wax wala lim fi def noonoo kenn musu ko femm lan moo tax mooy lim fi def si xam na ko. te ci la yem aussi ci li ma gën a neex ci moom en tant que sëriñ daara mooy day jàngal xale yi mais du du du du du influence xale yi yenn façon di di di influence xale du ko def moom day ñëw jàngale li ngeen seq muy muy xam-xam bi masala mi euh, euh, alquran ji ci tajwid bu leer nañ sa wécc lay jàngale kooku moom maa ngi koy wax ci mënu ma muñaale ndax dama koy fekk si fii mu nekk sama xarit fu mu nekk fekk naa ko ba pare mu nekk sama dëkkandoo kon loolu dama ko ci félicité moom oustaz Chérif Konaté yàlla na yàlla sàmm la ca yàlla na yàlla aar la ki ñu seetaan na xam ne oustaz a nga ni bu jara ñaanal de man de xam naa ne ku jara ñaanal la ca it ku fi jara téye ci dëkk bi la waaw parce que it yokkute rek lay ne ci dëkk bi xam naa sama nijaay nga baal ma faaw ñu téye ko fi dara de <laughs> maam faaw ñu sampal ko kër <laughs> faaw ñu ko kër macha allah waaw fi may jeexale ci pour bañ a jël bi mooy Euh, daara kuy ñëw ci conférence naa la signaler yii di yii di waaye ñëw gis nga xale yu ndaw yéen ngeen di seen xam dañuy jàng maaj bi ay weer gisa xale bu la maajal ca fekke ko xam chaise rek la maajal ngeen baal ma moo ko soxna su la solul yow mi boroom kër gi ca gisoo col gi yéen yam Ah? <laughs> sama nijaay la bëgg ko <laughs> maam gisa xale bu la maajal xam dafa waaj maaj ñëw fekk fa ay chaise kese moralam mooy damm ñu bëgg waajur yi heure bi leen jox na ñëw toog xale yi neen defee aw xol ngóor a maaj wut seen way yoo xam xam da leen di neex ñu ñëw fekk na ay chaise rek la ñuy wayal yaakaar naa loolu El Hadj Papa mi xam lan mooy animation mi nga xam dama koy wax ni ko borom Uhud ak borom <laughs> xaramay ni chérifay nii mi xam li ci wayal ay chaise neexul Mm-hmm. wayal ay chaise neexul de kon na parents yi ñëw ñaareel bi ca fa euh, jeexale mooy conférence dafa xew ku fay dem nang gisa di ngay sañsee na nanga yor jikko yi kuy dem tool man yaakaar naa kenn mus a dem tool ak loxoy neen di nga yor gopp wala nga yor ileer wala nga yor ngaska toolu conférence nag moom boo fay dem dangay fexe ba yor gopp bu ñu wax wax tonne ciment ci sa poos bi wala gopp bu ñu wax 100 kilo fer ci sa poos bi wala gopp bu ñu wax 8 mètre béton ci sa poos bi wala gopp bu ñu wax sax file de fer ci sa poche bi parce que daara aussi da koy soxla ca sëriñ daara bi ci làcc wi yow mi ñëw ca làcc wale parce que bàq moo tooy ca ku ji mu sax yal na yàlla dafa ñu tawfiq ak tey siir di dellowaat kàddu gi sama nijaay sama fierté El Hadj Moussa Ndiamé Guèye jërëjëf jërëjëf oustaz Mamor Mbeng macha allah kon euh, dégg ngeen oustaz Mamor Euh, damay wax ni euh, woote bi euh, su yamoon rek ci kàddoom mooy ñu ñëw taxaw daara yi loolu rek dafay doy kon ñu ngi lay jaajëfal yow tam ci taxawaay yu am solo yi dinaa koy wax ca sa mag laa ko daan commencé di ko wax muy Baye Ndiouga ndax seq nañ ko guddi seq nañ ko bëccëg ci micro mu nekk nit koo xam ni canaba rek lay dawal dama daan wax naa Baye Ndiouga boo ko séenee muy dem ci canaba la nekk waaye bu dee ñëw tamit ci canaba la nekk yow tam ci tànk yooyu nga nekk ndax yéen a bokk ndonoli ndax ku xam démb euh, Baye Dame Mbeng ku ko xam euh, dina xam ni euh, doxin bi noonu la woon macha allah yàlla yàlla barkeel ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk téléspectateurs yi bis baa ngi noonu muy samedi 26 juin 2021 di conférence bu mag bi nga xam ni institut Salman Al Farisi Euh, moom lay organiser dégg ngeen ca commencement wax ja euh, déglu nañ kàddu ki nga xam ne moom mooy Chérif Konaté euh, mi nga xam ne moom moo yore moo jiite njàngale mi fii ci daara ji waaye ànd na ci ak yaa sayda Marème Niang macha allah moom tamit mu ngi koy jàppale ci liggéey bi waaye yaa sayda Mati Seck mu ngi koy jàppale ci liggéey bi ak yaa sayda Roxaya Mbub macha ñoom ñu ngi leen ñu ngi taxaw rek ci wetam di ko jàppale ci njàngale mi yàlla na yàlla barkeel ci barke Sidina Mouhamed sallallahu sallam soxna Daaro Ndiaye eh, teewoon na ci jataay bi moom tamit mu ngi mu ngi toog eh, waaye nekk ànd ak ki nga xame ni mooy soxna Aïcha eh, ci liggéey bi mu nekk loo xam ne lu ama am solo la soxna faatu Mbuub moom tamit la même chose ñu ngi koy jaajëfal ci taxawaay yu am solo yi macha allah di ñaan rek yàlla na yàlla barkeel ca kàddu yu njëkk yi Chérif Konaté yëkkati na kàddu bi mu daaneelee imaam Souleymane Ñing moo ci teg ay kàddu yu woote euh, jëmale ko ci kilifa yi waaye wàcce ko ci njaboot gi euh, ki nga xamee ni mooy Pape Abdoulaye Mboup euh, di parent d'élève yëkkati na kàddu moom ak soxna Aïcha Guèye ginnaawam oustaz Mohamed Sène Euh, ci kàddu sëriñ daara moom tamit yëkkati na kàddu rek euh, macha allah woo ñi nga xam ne ñoom la bokkal daara ji euh, ci wàllu programme bi ak organisation bi sëriñ Baye Abdou Silla moom suñu jarbaat moom tamit yëkkati na kàddu yu am solo waaye oustaz Mamour Mbeng moom moo ñu tëjal kàddu yi di jaajëfal nag ki nga xam ni moom moo initié lépp jaajëfal nañ Serigne konaat Chérif Konaté waaye ñuy jaajëfal tamit suñu grand muy baay Cheikh Mbay damay wax ni Euh, waxuma la relation bi ñu am ci toog annonce ci daara ji waaye beneen relation boo xam ne personnellement man Ndiamé Guèye am naa ko ak moom mu nekk koo xam ni suñu mag la waaye xam naa ni ku ñu bàyyi ku ñu ku bàyyi xel la waaye ñun tam bàyyi nañ ko xel euh, ñu ngi koy ziara incha allah lépp loo xam ni Euh, muy xalaat wala lu ñu war a mën a taxaw ci bis bi euh, dinañ ko ànd ak ñoom euh, bu soobee yàlla kon ñu ngi koy jaajëfal ci taxawaay di ñaan tamit lépp loo xam ni mu ngi koy sàkku ci daara ji yàlla na yàlla defal ko ko ba mu raw njortam ci barke Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal sëriñ da ndongo daara yi nga xamee ne ñoom tamit ñu ngi ci biir daara ji teewal na leen ci jataay bi Cheikh Guèye mi nga xam ne moom moo ñu ubbil ci alxuraan ñu koy jaajëfal bu baax waaye ñu ngi àndoon ci caméra bi ak xalifa Mouya Daba Ndiaye Seck ci liggéey bu am solo bi muy liggéey bi euh, ci Thiénaba TV moom tamit di ko ñaanal rek yàlla na yàlla gën koo taxaw euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Moussa moo àndoon ak yéen ci waxukaay gi joxante dig daje incha allah yeneen i jataay jàmm ak xéewal ak sutura yàlla na ko yàlla def mu saawaan baawaan ci Thiénaba ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements pour la couverture médiatique de grands événements si elle t'a